ci ndigalu xalif général de serigne baba Babacar Sy Mansour na u xadrati tijaaniyati section bu Kër Massar bi nga xam ne seen coordinateur mooy oustaz Ngagne saar coordinatrice bi di soxna Yacine Diouf ànd kook oustaz Ousseynou Diaw président bu communication bi oustaz Abdoulaye Dieye nekk président bu culturel Abdou Salam Sarr nekk président bi nga xam ne moo yor wàllu organisation Ngeñ Beng nekk président bu finance ñooy ànd ak mbokku juliti mbokku taalibe yi di leen yëgal seen xadara populaire bi nga xam ne moom la ñuy amal kañ la aljuma tolloog le 8 novembre ñu koy amal foofu ca Kër masaar ci terrain bu Yékini jàkkaarloog maison de la femme kan moo koy teewee sunu sëriñ moo koy teewee sëriñ Mouhamadul Moustapha si bu sëriñ Abdoul Aziz si Al Amin benn al aljuma benn tàkkusaan taalibe tijaan yi nga xam ne ñoo nekkee ca Kër Massar ak ko wër ñoom ñëpp ñu àndandoo def seen xadaratul juma ñu ci invité mbokk julliti bàyyiwuñu kenn di ko yëgal nag monsieur kër Gueye président bu conseil départemental bu Kër masaar imam Rawhan Kanji Kër masaar village imam Ndonga Diaw Kër Massar montagne imam Massar Fall alxaaji Paate imam Ibrahima Njegen moom mi nga xam ne moo nekk seen diggante ak imaam yi Makhtar Diop Jaraaf président bu Abnaaw Cheikh Tidiane Dioum président union bu Serigne Moustapha Sy Jamil nekk foofu ca Kër Massar. Cheikh Tidiane Sarr président bu taaxi section Kër masaar muy daayira Mam Malick Sy borom daara ji. Cheikh Tidiane Ndiaye président daayira Tidiane bu Kër Massar Baye Ibrahima Wane Darou Michel Sini Paate Ndour. président bu koskaas mbokk yi ñan ñoo woote waa abna u xadarati tijaaniyati section bu kër masaar lan la ñu woote seen xadaratul juma bi kañ la aljuma tolloog le 8 novembre bu tàkku saan jotee ñu koy amalee foofu ca kër masaar ci terrain Yékini fi jàkkaarloog maison de la femme muy am ci teewaayu sunu sëriñ sëriñ Mouhamadul Moustapha si bu sëriñ Abdoul Aziz si Al Amin bés boobu nag ñu ciy woo waa Mbaaw waa Zag Mbaaw waa Buun waa Yëmbal waa Caaroy waa Malika waa Petit Mbaaw waa jàmm gën bàyyiwuñu kenn abna u xadrati tijaaniyati nag sëriñ Abdoul Aziz si Al Amin moo joxe woon ndigal li xadra populaire yi ñu amal ci biir Sénégal nag waa Kër Massar ñoo aye le 8 bu ko kenn wuute waaye nag ñu ngi sàkku taalibe yi képp kuy ñëw ngeen sol lu weex te ngeen teel a ñëw